Ousmane Sonko fàtt nga nu laqale nga nu soof nga léegi looy daw di nëbbatu ji la ñu xamul Ousmane Sonko nëbbatu ji na Casamance ndax Adji Sarr li ngay gàcce woote combat ba guerre ñëw nga daw laqatu ji <laughs> waaye xaar leen gars yi maa ngi ñëw si live bi ba ma génnee sarax bi ba pare ku la sarax bi allez waaw kay auzu billahi mina Sonko rajim ñëw leen ñëw leen ñëw leen ñëw leen yàlla yóbbu Sonko yóbbu ayu Sénégal yëpp astafurlah nitu fitna astafurlah bàyyi tooñ yaa ngi tooñ dem leen dem leen dem leen génn leen génn leen duñ génn nangu ñoo génn dama ne sorte wala naka fete ni picc yi amee liberté yal na ko Sonko amee liberté jamais jamais sorte sorte bàyyil sama lii non da nga fere ni billahi mina sonko rajim Ousmane Sonko woote na guerre woote gatsa gatsa daw na na ba tuji na sa dar kaseer auzu billahi mina sonko rajim ah boy auzu billahi mina sonko rajim li ba di picc yi daal yàlla ko seen rek bàyyi leen rek bàyyi leen sonko awa ñu lii moom yow sonko ngay jënd kenn leen sarax kenn leen sarax kenn leen sarax sonko rek Sonko rek Sonko rek yow am na yow yow ngay live di xas Sonko. yow ngay xas Sonko. yaa ngi si direct bi 30 personnes la yow kese yaa fi doon Macky Sall. moo nga xam ne la ji waxoo fi dara waaye pusal loolu. gannaaw da ngay xool ci ginnaaw ci ginnaaw kees bi ngay xool ci ginnaaw. picc yi nangu ñoo def. picc yi nangu ñoo génn. ci ginnaaw kees bi. kenn leen kenn leen léegi nag xaar leen nii ngeen jàkkaarloog man vous cent quatre cent personnes dama ne onze billahi minal Sonko rajim Ousmane Sonko woote na gatsa gatsa ba gatsa gatsa ñëw mu daw Ousmane Sonko lu toll ni manifestation M24 àdduna yëpp ñëw moom kenn gisu ko Barthélemy Dias moom mu ngi a bitim réew mais Sonko fu mu dem yow nga woote gat sa sa boo yëpp bàyyi luñ jàppoon ñëw yow kenn tegu la bët Ousmane Sonko nga ne woon procès nga bëgg yow Adji Sarr Adji Sarr mu ne procès la bëgg yéen ñaar Ousmane Sonko sénégalais yi di la xaar kenn gisu la nga nëbbatu ji dégg nañu jamono ji yaa ngi ca biir darkase mais jàppal ni nag lii gàcce la bu fi yemoon sax neex na am nañu ndam am nañu ñu <laughs> am nañu ndam am nañu ndam gars yi am nañu ndam waaw ñun ku ñu nar a përal daw na xam nga ne lii léegi ñu ngi xaar CNG CNG na ne prip ci loxo Adji Sarr jox ko ndam sama gars yi dama leen koy ñaan Ousmane Sonko bu ko kenn yóbbu tribunal ñaan ko ñaan naa leen ko non bu mu yóbbu bu mu bu mu dem tribunal parce que wane na boppam sama gars yi deux ans si ginnaaw Ousmane Sonko moo point de presse mu ne diggante ak Adji Sarr complot la complot mu ne dafa yàqamti tribunal ñu taxaw mu wane complot bi boo ko laalee dinañ ko gaañ di nga feeñ fii bés boo fi moom sama koñ moom ku fi ma woo police fii fii ku fi taal ma woo police woo gendarmerie Sonko ab muqat la daw na lii gàcce la dama ne lii gàcce la parce que Adji Raby Sarr bu sell bi gis nañ ko fan yii yëpp mu ngi def vidéo di wane boppam di wane ne mu ngi waajal combat dal la ne sénégalais di xaar Ousmane Sonko démb ci manifestation bi pour mu ñëw Ousmane Sonko kenn tegu ko bët jamono ji te kër góor gi bu mu amoon terrain titre foncier boppam daw na bàyyi na terrain bi daw na daw na daw na mais lii gàcce la sama gars yi encore une fois qu'on la vérité non mën nga dem kii qu'on se la vérité lii défaite nationale ak internationale la man waa Pastef laa yërëm yéen seen waa yaakaaroon ne seen projet bi dina egg projet bi toog na projet boo xamante ni ana picc ya andiwaatal ma picc ya andil ma picc yi andil ma picc yi onze billahi minal sonko rajim onze billahi minal sonko rajim génnal ma ale onze billahi minal sonko rajim onze billahi min waay teel ma ni onze billahi minal sonko rajim Ousmane Sonko yàlla na ko borom bi teg lu métti président Macky Sall yàlla na borom bi sàmm ko taxaw ko amin tof tof ale naan ma nii Adji Raby Sarr yàlla na am ndam bu mot sëkk ci kaw Ousmane Sonko te gis nañu am na ndam ndax Sonko daw na tëf tëf barki rasulillahi eh Ousmane Sonko xamoon nga ni defet bi Sénégalais yëpp dinañ ci teg bët nga am komba tribunal nga ne doo wuy ji xale bu jigéen moo lay dawloo nga génn réew mi oui Sonko daw na oui Sonko daw na oui Sonko daw na Sonko daw na Sonko nëbatu ji na sa dar oui Sonko may leen ma ni may leen ma ñu ñu feete sunu victoire libéré libéré libéré libéré les otages Sonko daw na gis nañ ko mais yéen xam ngeen ne saawaay daw na nañ waxante dëgg yéen seen bopp xam ngeen ne saawaay daw na ñun nag yéene wuñ ko lii ñun yéene wuñ ko lii ñun dañu ko yéene woon jour procès mu ñëw comme dafa yàgg wax sénégalais yi que mbir mi complot la mu ñëw mu won sénégalais yi nan la nekkee complot bu ko defee ñu def ko en direct àdduna di gis sonko doon na sonko daw na sonko daw na sonko daw na buy sama ndey mais lii gàcce la sonko onze billahi minal sonko onze billahi minal sonko onze billahi minal sonko onze billahi minal sonko ah titi camara onze billahi minal sonko yo bone naat ousmane sonko allez yo bone yo bone ajjin ousmane sonko soppala bala eh, eh. al ma nii rek jëlal jëlal teg ko na le bu ko ray de bu eh. la ma teel nii xaara xaara rek xaara kaay teel teel benn am teel xaara xaara kaay leen teel ma teel ragal ragal teel neel onze billahi minal sonko. onze billahi minal sonko. onze billahi minal sonko. ale ñaanal mu dem jàppal onze billahi minal sonko. onze billahi minal sonko. onze billahi minal sonko. am yow kaay ñaanal ma eh kaay teew kaay kaay ñaanal ma kaay gaaw eh kaay teel nii teel nii kat dañoo ragal picc yi kaay kan moo ñeme picc yi xale yi sax ñu ngi musulu si Ousmane Sonko. onze billahi minal sonko kaay kaay ni teel kaay ni du la def dara kaay kaay ni kaay teel du la def dara du la def teel ñaanal onze billahi minal sonko onze billahi minal sonko ale ñaanal onze billahi minal sonko ale bàyyil mu dem ale onze billahi minal sonko ah ale ndaa ndaa onze billahi minal sonko ale na o oh, naaw na e bàyyi leen ko rek am da ale onze billahi minal sonko onze billahi minal sonko wa tuf tuf onze billahi minal sonko onze billahi minal sonko tuf tuf ale tuf tuf onze billahi minal sonko sénégalais yëpp musulu si ayub sonko sonko sonko sa ay yàlla na yem sa yo yoog ñi nga sonko daw na eh sonko daw na minal sonko andi rek minal sonko rajim eh onze billahi minal sonko tuf tuf tuf président Macky Sall deux mille deux mille vingt neuf deux mille deux mille vingt deux mille vingt neuf président Macky Sall amin deux mille cinquante deux mille cinquante kii nee na deux mille cinquante ñaanal onze billahi minal sonko teel nii teel nii teel nii nga ñaan Ousmane Sonko yàlla na yàlla musal si moom amin amin ñaanal teel ñaanaatal am ñaanal Ousmane Sonko yàlla na yàlla musal si moom waaw ñaanal ñu yàlla ñu yàlla musal Sonko. allez waaw merci ñaan ba nangu na ndaw yëpp ñaan nañu yàlla nañu yàlla musal si Ousmane Sonko yàlla sunu borom xam ngeen ni xale moomin la te xale lu mu ñaan yàlla sunu borom yàlla nangu. onze billahi minal Sonko teel yow teel dafal ñaan onze billahi minal Sonko waxal ma dégg onze. billahi minal Sonko rajim. onze billahi minal Sonko rajim. allez waaw kay xale jàmm la bëgg teel onze billahi minal sonko rajim onze billahi minal sonko rajim waxal nee ko jàmm la gënal ay jàmm la gënal du teel ale xale yi ñu ngi ñaan jàmm yàlla day nangu jàmm ji a onze billahi minal sonko rajim onze billahi minal sonko rajim a onze billahi minal sonko rajim a onze billahi min ale awuleen a onze billahi minal sonko rajim أعوذ بالله من السونك الرجيم أعوذ بالله من السونك الرجيم eh ñëw leen nii après di ngeen am seen bonbon taxaw leen nii ngeen woy déedéet taxaw nii ngeen onze billahi ale woy woy bu bees woy bu bees aouzu billahi minal sonko rajim woy bu bees aouzu billahi minal sonko rajim أعوذ بالله من السونكو الرجيم أعوذ بالله من السونكو الرجيم أعوذ بالله من السونكو الرجيم ah way bu bees nag aouzu billahi minal sonko rajim lii il faut ñu def ko hymne national si daara yi si njàng bu kawe bi si université yi dañuy muslu si saytaan te yéen ñëpp xam ngeen seytaan bi fii benn la mooy Sonko nitu fitna kaay leen xeex kaay leen xuloo kaay leen rayante pour lan mu am si lan ah sunuy doom dee sunu ay mbokk dee ñu am si lan Sonko il faut nga arrêté eh du avancé may ñu jàmm taxawal fii taxawal fii fii Sonko moomu fi ah bala nga jóg léegi kaay fii yow xaar ma wane la sax nitu Ousmane looy daaw looy daaw nitu Ousmane Sonko la daaw na <laughs> wéy sama ndey nitu Ousmane Sonko la daaw na waaw eh ah, dama bëgg mu dëgër aouzu billahi minal sonko rajim aouzu billahi minal sonko rajim sonko rajim allez kontaan naa si yéen xaaral ma ñëw ma jox leen seen seen seen seen seen seen boisson parce que xale bu ñaanee rek yàlla da koy nangu waaw yàlla xam nga ne xale amagul bàkkaar ah aouzu billahi minal sonko rajim dafa baax ñu muslu jox leen jox leen jox leen ñoom ñëpp jox leen jox leen ñoom ñëpp jox leen taxaw leen mu jox leen rek yéen ñëpp dina leen jox ah Sénégal jàmm la ñu xam Sénégal salaam la ñu xam Sénégal bëgguñu musiba benn mbindeef bëgg ñoo andil musiba ci mim réew mooy Ousmane Sonko waa Ousmane Sonko Adji Raby Sarr Ousmane Sonko daw na waa Sonko foo jëm Ousmane Sonko lii defet la si sa gars yi ne woon defoo dara ñëwal tribunal li nga doon wax si sa presse bi dinaan defoo dara dangay ngay ñëw taxaw tribunal devant tous les sénégalais ñu xam ne defoo mais yow nooy tooge naan defoo defoo naan dossier bi dafa vide nga am onze avocats léegi onze avocats nga am ko ba pare daw Sonko fu mu jëm may wax démb waa Pastef di génnee vidéo naan way gars yi bëgg arrêté Ousmane Sonko Macky Sall mais Macky Sall arrêté wul Ousmane Sonko yéen ñëpp xam ngeen ne Sonko moo waroon dëggal boppam ñëw signé ne jour procès bi dinaa ñëw mais ñëwul ba heure bi day ne que day daw mais Sonko lu muy daw fan la jëm mais lii gàcce la lii gàcce la mais jaajëf gars yi jaajëf jaajëf jox na leen dig daje incha ci yoon allez au revoir on se dit jëf jëf ah. ah. Allez. Aouzu billahi minal sonko rajim. Aouzu billahi sonko rajim. moytu la tabi léegi nekk naa jàngale jàngalekat nekk naa jàngalekat sama taali ngi nii benn liggéey leen ñu am aouzu billahi minal sonko rajim ah jël leen jël leen jël leen sama gars li dafa neex di muslu si Ousmane Sonko rajim ñëpp xam nañ ne mooy seytaan bi si mim réew nit dangay ngay daw musiba nit da ngay daw ay nit da ngay daw luñ la waxut musiba baaxul réew mi kenn ñaanu fi musiba réew mi jàmm la ñu bëgg salaam la nu bëgg xale yu ndaw sax ñu ngi musulu si Sonko allez je vous dis au revoir yàlla na yàlla def jàmm senegal yàlla na yàlla xotti gàttu Ousmane Sonko bu dee bëgg ngeen dégg dëgg waaw waaw réew mi ku fi yëkkati fitna sa gàttay tàng jamono ji xam ngeen ne gàttu Ousmane Sonko tàng na parce que daw na nga am si kër góor gi ak nu mu neexee ak nu mu calmee nga daw dem ca àll ba nëbbatu ji ah Sonko lu muy daw Sonko kan moo ko génnee réew mi Adji Sarr xam nga ne Sonko bu jotoon passeport am lii la état doon bañ état lii la doon bañ bu joxoon Sonko passeport am heure bii Sonko day daw dem toogi Angleterre lii la état xamoon mais mu ngi Casamance yàgg yàgg dina ñëw Casamance moom mënoo fa toog rek di lekk dew tiir yàgg yàgg di nga ñëw ñu ngi lay xaar. Sonko jigéen moo lay génne réew mi Adji ab xale bu ndaw accusé la nga war a ñëw leeral dëggal sa bopp taxaw tribunal wane ne que defoo sénégalais xam dëgg yow nga daw nga nëbët xam nga ne kooku kooku kooku kooku kooku kooku bëggul jàmm mais nekk leen si jàmm la famille ba beneen yoon incha allahu rabbi la vie est belle muslu nañ si Ousmane Sonko te jàmm dina ñëw incha allahu rabbi si Sénégal bu neexee suñu barab allez au revoir jaa ngeen